jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ceraanga ak poche def dara ni ñu koy baax ji dafay fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci ilallahi ibadallah ilallahi ibadallah di jéego yi nga xam ne mooy jéego yi nit ki di jéego jëm ca boromam ba demee ci benn bindkat bu ñu wax docteur Yuusuf alxaradawi yal na ko yàlla yokk wér ñu benn bind benn silsila bu am solo tudde ko fi tariqi ilallah fi tariqi ilallah ndax gaa yi danañ ko faral di bind yu mel noonu ibnul qayim al jawsi moo bindoon madaariju saalikiina waaw tabarkalla nga ñëw fekk moom suñ tubaab bind masaalikul jinaan ila axirihi muy xam-xam yi nga xam ne ci la ñuy defaree nit ba nit ki ngay gis nii mooy nit ki nga xam ne ki ngay gis nii mooy nit ki li ci bitti moo ne ci biir li ci biir moo ne ci bitti xam-xam boobu loolu lay def bu bàyyee nit defar ko ba noppi moroomum nitam moo koy gënal xaalis nit a koy gënal lu dul nit te nit ñëpp lay bëgg nit ñëpp lay fonk lu tax parce que xam-xam boobu mooy dind ci moom sidit yu baaxul yooyu moo tax xam-xam ba mag ñu tudde woon ko ilmu tazkiya waaw ilmu tazkiya ñenn ñu tudde ko tasawuf ñenn ñu tudde ko ilmu tarbiya nga xam ne dala na defar ba sa làmmiñ wi sa làmmiñ wi waxuma la saaga mbaa wax lu baaxul mais lu négatif du ci génn parole négative je pense que noonu la yooyu parole du ci génn waaw ñi mag ñi yaroon koo ci topp démbam noonu lay mel ñi yar tey it koo ci topp tey lay mel xam-xam bu am solo la bu nekkee ci penc mi mu jag loo ko mooy mën ngaa dégg koo xam ne kii dañ naan la kii nitug diine la mu wax njombe ëpp naa def ala kulli xaal ilallahi ibadallah ñu àndoon maag yéen nag tàmbale woon ko ca al yaxasa tàmb tegoon ca al tegoon ca al basira tegoon ca al waa ji tàmbalee waa ji tàmbalee dox mu doon dox nag ba agsi ci at tawba at ba ñu doon topp tawba ba agsi ci mu kaffiraatu zunub waaw li li li sunu borom defal eh, bàkkaarkat yi di san mu kaffiraatu zunub liy fari bàkkaar liy fari bàkkaar ca la tawba topp bokkoon muy tuub li fari bàkkaar ca la istixfaar bokkoon muy jégglu waaw jégglu ci la fari ca la jégglu bokk waaw liy far bàkkaar ca la alxasanaatu wa taaat bokk yu rafet yi ak topp yi liy fari bàkkaar ca la tawxiid bokk ak set ci bokkaale liy fay bàkkaar ca la njàpp bokk ak julli ca lañu ñu tolloon bind bi weesu njàpp lu rafet ak julli gu rafet waaw ca la ca la bokk mu ñëw tey ci beneen tomb soxna njinde ci liy fari bàkkaar yàlla na nu yàlla faral suñuy bàkkaar moo di lan asiyaamu wasalaatu wal xaj allahu akbar asiyaamu wasalaatu wal xajj ndeysaan asiyaamu mooy koor ndax ibaadaat yi te mooy yi nu yàlla sant koor ca la bokk sadaxa muy saraxe ca la bokk aj màkk ca la bokk umra ca la bokk boo demee ci saxiixa yi ni buxaari ak muslim daf ci am hadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci abu hurayrata ñu ngi ko jële ci abu hurayrata abu hurayrata dégge ko ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam lu yonent ba wax man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba xufira lahu ma taqaddama zambi ku fi woor weeru koor fekk nga woor weeru koor wa te gëm tax nga woor ko ak sàkku payogu yàlla yàlla jëggal la sa bakkaaru daaw maanaam bakkaar ba jiitu koor ga yépp mu jéggal la ko allahu akbar mu tax koor kenn du ko kafe seytaani mooy fexe nag moom ba koor gi ñëwee nit ñi di kaf ci koor gi di di lu nu ñu def ko ci koor gi ba koor gi jàll te koor nekk lu sérieux déggal man man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba gufira lahu maa taqaddama min zambi waaye bu koor gi ñëwee fii sketch yi ci koor gi daanaka day yàq koor gi xajamal ko téléfi télévision boo taal seen sketch yoo xam ne wóor na lii du koor di reeloo nit ñi di di fecce ka ndagar wala ka taasu sketch bu ne nga seetaan ko loolu loolu day day tax nit ñi ñoom mel ni ko fàtte série gi nekk ci koor ak baax gi nekk ci koor ak ni muy fare bàkkaar mu waxaat ne man xaama ramadaana imaanan waxtisaaba xufira lahu maa taqaddama min weeru koor màng ko ba mu jeex allahu akbar laxasaayu weeru koor màng ko ba mu jeex ñu jéggal la sa bàkkaar yiitu woon koor gi wa man xaama laylatal qadr imaanan waxtisaaba xufira lahu maa taqaddama min zambi seetal loolu ku leetul xadar ñëw nga laxasaayu ko ba mu jeex ñu jéggal la sa bàkkaar yi jiitoon leetul xadar mbokk yi kon jëf jooju ñuy jëf muy woor muy saraxe muy aj wàccuwaay yooyu la am ci pénc mi ilallahi ibadallah waaw mu ngook boo ñëwee ci aj abu hurayrata déggaat na sallallahu alayhi wa sallam di di waxtaan man xajja hada al bayt fa lam yarfus wa lam yafsus xaraja min dunubihi ka yawmi waladathu ummu waaw nee na ku aj kaaba gi ku ko aj si bi nga aj see defoo fi caaxaan bi nga aj see defoo fi caay-caay boo ñibbi sam réew doo yóbbaale bàkkaar ah boo ñibbi sam réew doo yóbbaale bàkkaar boo àggee sam réew yaag liir buy dóor a juddu yéen yem moo tax ma waxoon ko sama ujaaje boo gisee ñuy wat ab ujaaj liir buñ koy tudd dañ koy wat te ujaaj comme dañ koy tudd dañ koy wat ñu wat la ba nga seet wecc daal lay tuddee alaaji <laughs> chetti baax ko ak ujaaj ba rekk ndeysaan mu xëm waaw wallaay ndeysaan hmm? mu xëm chetti waaw nit ki bi mu ajee màkkati deful fusuux deful rafas caaxaanu fa caay-caayu fa buy ñibbi du yóbbaale bàkkaar day mel ni liir buy dooru judd ci ñàkk bàkkaar ma ne moo tax ñu koy wat daal di koy wutalu tur wat ko nel bu dee góor bu dee jigéen ñu jemp ca kawar ga tuuti daal di wut tudde ko jigéen ka ajaa ndeysaan allahu akbar tudde ko góor gi ji ñu dem ñibbi wallaay ndeysaan hmm? ujaaj ba na këpp mën na ko jaar na ko de mbokk yi kon aj màkk day far bakkaar waaw ngoog kon nag képp koo xam ne ki aj màkk aj nga màkk nga bàyyi xel ci occasion bi nga am ak li la occasion mën a jural mu waxaat moom alayhi salaam ci hadis boo xam ne ñu ngi ko jële ci amr ibnul aas mu ne yonente ba nee na inna al islaama yahdumu maa kaana qabla wa inna al hijra tahdumu maa kaana qablaha wa inna al hajja nee na loolu yonent bee ko wax ñu ngi ko jële ci amr ibn aas nee lislaam day màbb li ko jiitu woon bu nit ki duggee ci lislaam lim bàkkaaroon lépp yàlla baal na ko waaye ku gàddaay li jiitu woon yàlla baal na la ko waaye ku aj màkka li jiitu woon lépp aj màkka ga màbb na ko waxaat na ne ci fari bàkkaar yooyu al umratu ila al umra kafaaratun lima baynahuma wal hajjul mabruur laysa lahu jaza illa al janna nee na aj màkka neena na umra day far bàkkaar yi ci diggante yi maanaam weeru koor boo umra woon weeru koor del si nga umra waat diggante bi sunu borom baal na fi li nekk lépp waaw diggante umra ak mu ne aj nag moom li muy def moo loolu moom aljanna rek allahu akbar aj moom aljanna rek waaw ba dama ca nasaa yi yonent baa ne taabihu bayna alxaj wal umra fa innahuma yunfiyaani alzunub kama yunfi l kiir xubth al xadid yonent bi nee na baagante leen aj ak fu ngeen amee occasion rek aji leen <laughs> fu ngeen amee occasion rek umra ji leen ñu ne ha mu ne waaw ndax ñoom ñaar dañuy raxas nit ci bàkkaar ni nga xam ne noon la upp tëgg bi raxase weñ ci xumaag weñ gu xumaag boo ko yóbboo ci ñay liggéey ci weñ am nañ lu ñuy teg ca moom bam raxas ko ba weñ nga set wecc waaw léeg-léeg xeetu ndox lay doon léeg-léeg xeetu sawar lay doon waaye ba mu seet wecc bu fi nogoy takkoon or bu ëpp la muy takk <laughs> ba or ba ñaqam ma jàpp kook ñoom seen yooyu bu ko yëtee Modou Mbàkke jum xam na nu mu koy def ba or ba weexaat tal wala xonq cor mel na mel no ngay takkaat waaw seet orom no ngay waaw de <laughs> kenn mësu ko gis rek waaw genn ceen ak <laughs> ñaari jaar yu nopp amul jaarul loxo te ceen nga daal dagg <laughs> mu fas koo ko gu wëñ seet mu ni ma ñu ne ne or or kenn ko génne asaka ma ne ko yow pourquoi la question lu tax ngay laaj laaj bi mu ne damay laaj rek ma ne ko yow de waxuñu la yow yow moom li nga li nga yor moom kenn du ko génne asaka ngeen baal mu waaye ceey ko oram nogay xam naa bis bu télévision Sud FM amee bët bu seet ma woon leen nogay waaw li may wax nii ngeen xam ne <laughs> kenn mus koo gis rek oram nogay <laughs> dégg nga. yonent bi waxaat ci mu kaffiraatu zunub muy bàkkaar mu ne wax ko ca ashura ahtasibu ala llahi annahu yukaffiru sana allati qablaha mu ne yaakaar na ne ashura woor ko day far bàkkaaru at mi weesu woor ko day far bàkkaaru at mi nga weesu ak ma ca tege woor bisub tamxarit waaw bu bu ndaw ku ndaay reere cere ba xëy nga woor bés boobu day far sa bakkaaru at bu arafa jotee nag nga woor arafa aha arafa moom ñaari at lay effacé at mi weesu ak at mii deux mille dix ak deux mille mbokk yi yiy far bàkkaara ngoog waaw yiy far bàkkaara ngoog waaw bokk na ci yooyu nag as-sadaqatu tudfiu al-xatia kama yudfiu al-maau naar nee sarax day far bàkkaar ni ndox di faye sawara allahu akbar sarax day far bàkkaar ni ndox di faye sawara waaye saraxit ci jafe la bokk dëkk bi ki ci dàq saraxe ci li ci ñenn ñi mooy kay saraxe këyiti tabax këyit yu yi ñuy ñuy bindee lay dem ci ab ku ñu tuddee sëriñ sarax ko ñetti këyit walla ñetti sondeel mbaa ñaari guro yu xonq ak ñett yu weex mbaa loxo mbiskit bu mu fanaanoo mbaa soow moom fanaanoo li léeg nga seen benn patron mbokk yi mu dawal ba ci ñi yalwaan teg tànkam taxaw ñépp da wër ko ndekete mbuusum mbuusum soow la yor yow mi topp ci moom sax da ngay ruus mbuusum soow defe nga ne mbuusum soow faj na ajo yow ki lay génnloo sarax bi sarax bi génnloo la ko pour yàlla daf lu ko génnloo pour jinne yi pourquoi ngay saraxal jinne yi lu ngeen séq lu ngeen séq ba soow mi yàlla sàkk ko sàkk xar ma ko génne wala xar nag wala ñoom seen yooyu nga dem jël soow moom yow di ko jox jinne yi naan ko am yàlla jox la yàlla ne man koy ma ko man am naa leneen lu may soow <laughs> noonu ko suñu mbokk sas tayib soosé di waxe yàlla na ko yàlla yokk wér waaw sas tayib soosé nee na añ jot ngay añ ub sa buntu kër nee na dóor sa ceeb ba gàtt macaat ba desal macaat ak ay xooñ ki ceeb jaxase ko ne taali bi am yàlla jox la sunu borom ne la joxuma ko de man koy am naa leneen lu gën lii waaw <laughs> ba ma xale ba saraxee ganaar gu feebar nga xam ne 2016 la ganaar gi feebaroon 2016 waaw ganaar gi feebaroon 2016 17 ba 18 mu yët ma ko waaw am yàlla jox la ma ne ko lii la ma yàlla jox <laughs> si mu ne këpp ma ne ko ah. daf ni ma am yàlla jox la ma ne ko lii la ma yàlla jox mu xool ma ma xool ko mun ne ma sama yaay la ko jox man ne ko waaw ah, kay ko joxe ba yàlla du joxe lii yàlla du joxe ganaar gu feebar waxuma laa gu yooyu gii waaw mu ne cell mu ne cell mu ne ma ah, man de yaay ne ma naa la ko sarax ma ne ko nee neel sa yaay merci ma jox ko kële ca bopp koñ ba waaye wax na dëgg sarax day far sarax day fay day fay bàkkaar ni ndox di fayee sawara waaye nag ban sarax ban sarax nit ñi nit ku jókkati cent mille francs def ko sarax un million def ko sarax deux millions def pour ñoom loolu du sarax pour ñoom sarax mooy la ngay coppati léeg-léeg gis taalibe bu wër Dakar ba daj ndeysaan du am deux cent francs te nag coow laa ngi ne kur ci dëkk bi taalibe yi taalibe yi taalibe yi te ku la gën a bëri coow ci taalibe yi boo ko laajee musta mus ba mu tàmbalee jox taalibe ak léegi lim joxe lépp matul mille francs ay dërëm lay joxee ki ay koppa kopp ak ah soow ak mburoog gerte ak léegi sax ñoo ngi see boole dégg naa pont saraxel pont ak i nàkk waaw ak i nàkk <laughs> soxla sa daa gàddu bool yu nàkkam indi ca daara ji mën ne ko mukk nun duñ lekk nàkk fii naa mën ne ko dong yi duñ lekk nàkk ah kon di jéggal ma mën ne ko jéggal naa la kay yóbbul sa nàkk rek waaye lu ko may fi ne lu tax ñun suñ daara kaar-kaar <laughs> suñ daara fexe nan ba wutal xale yi mën yi xale yi xam lu ñuy añee xam lu ñuy reere bu subaa ñu xam lu ñuy ndékkee tey lu ñuy njogani koo nga gàddu fa sag nàkk goo xam ne ku dem jànq bi nga ko defal dafa lamb nga tuur ko pepp ma ba noppi ci ay loxoom nàkk ko yëtnu noo bañ noo bañ duñ ko lekk ngeen baal ma ci tom bi waaye wax na dëgg waaw <laughs> du noonu sarax danga nga naan dëqit lu am solo koo ko jox mu siggi waaw koo ko jox mu siggi bu nit ñëwoon di sarax nga ne ko tépp dix mille muy la ma wóodu acceet nga ne ko déedéet jëlal yàlla jox la day siggi xool la mu ngoog ala xaal maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci mukaffiratu zunub mu ñëw ci beneen tomb ci lii far bàkkaar mooy zikrullah allahu akbar zikrullah mooy zikkar mooy tudd yàlla mooy tudd yàlla rawatina nag tudd yàlla gi bu fekkee ma ngay départ ca xol ba door a jaar ci wu lemmiñ allahu akbar bu fekkee tudd yàlla gi mu ngay départ ca xol ba door ñëw ci làmmiñ yaa yoon lazina amanu uskurullaha dikran kathira ndeysaan wa sabbixuuhu bukratan wa asila ee yéen ñi gëm ee yéen ñi gëm tudd leen yàlla dee leen tudd yàlla dikran kathira tudd gu bari tudd gu bari nag amul limite déedéet na bari rek Cheikh Islam Haaj Ibrahima Niass mu ne na bari rek li fekk jàppi wuñ la dof ñu naa mu ne zikkara goo mu neew allahu akbar zikkaran kathira waaw waaw zikkaran kathira ndax kathir ja daa bari wa sabbihuhu bukratan wa asila dee leen xëy di ko bàkk bu ngoonee bàkk leen ko waaw bokk na ca zikkar tasbiix te mooy subhaanallah tahlil te mooy laa ilaha illallah tahmid te mooy alhamdulillah takbir mooy allahu akbar alxaw alxaw alxaw xala te mooy laa xawla wala quwata illa billah yooyu na bari yooyu na bari kathiran waaye boo fi nekk di ay douze mille vingt-quatre ak trois cent cinquante-deux quatre cent trente-cinq ak ñoom seen yooyu déedéet na bari rek na bari rek waaw waxoon naa ko ca ba ñu nekk immeuble Fahd waaw alaaji Dramé ca Thiès xëm nee keroog añut <laughs> waaw ma ne leen lim bi ñu lay jox immeuble Fahd mi ngi nekkoon quinze étages mën na leen ñun ñu nekk cinquième jenn waaye ñëw dugg ci ascenseur bi bëgg ñëw cinquième daal di bës six jaawale na cinq ak six dañoo jege wala mu jaawele neuf ak six dañoo niroo neuf la jëm ba six nekk six ay gayndee fa nekk te ascenseur bu àggee day ubbikul boppam mu ubbi ko nga jàkkaarloo gaynde yi ñaar dugg fekk la ci musiba mu ne mën na laa dal ma ne noonu la ci lim yi mel bala ngay dugg ci lim ay zikkër ñoom seen yooyu demal jiital la gaa yi daan jiital sëñ Mansour boroom daar daana ko wax de waaw waaw radiyallahu taala anhu zikkara ngoog subhanallah wa bihamdi ca la bokk ndax day fari bàkkaar laa ilaaha illa wahdahu laa sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in fukki yoon hmm, boo ci defee fukk mel nga ni ku goreel fukki jaam mel nga ni ku am fukki tuyaaba faral nañ la fukki bàkkaar benn tuyaaba nee naa la mooy liberté un 2 3 4 5 6 ba extension nga boole si jëppal 1 2 3 4 lépp nga boole ko loolu mooy benn tuyaaba léegi nag boo waxee laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku loolu hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fukki yoon am nga benn tuyaaba ñu dencal la am nga nga am nga fukki tuyaaba ñu dencal la bu yomal xiyaama jox la lépp tabarakallahu mbokk yi maa ngi ci mu kaffiraatu dunub maa ngi toll ci zikr teg leen seen baaram foofu ñaan suñu borom mu may nu buñ ko dégloo benn yoon ñaari yoon ñetti yoon dañuy indi bu bees maanaam su ngeen ko seetloo daanaka waxtaanu vendredi waxtaanu samedi waxtaanu dimanche dafa mel ni benn yoon lañ koy am par weer na ak itam rijaalun hawla rasul moom itam nun la mel bu dee waxtaanu fajar nag chaque jour ngeen am bu dee lundi ak mardi ak mercredi chaque jour ngeen am bu bees incha allah ndax loolooy mën a tax yooyu am ndax studio bi du suñu studio nun dong maak euh, journaliste yi laak euh, tubaarkàlla <laughs> ak si ñu far yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne tax yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncal lu ko cowaaf ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor mii C3S nekk ci euh, croisement Lagros wala yoonu Raglos wala yàlla yàlla defal seen mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.